ci fi nga xamante ne lañ nekk ay nu raxmati Rahmati bokk ci bërëb yi nga xamante ni euh, sëriñ bi ci boppam moom moo ko daal di euh, defaral boppam euh, mu nekk ci ay milieu yoo xamante ni bokk ci milieu yi gën a mythique ci Touba daan ñu bëri duñ ci fal di xel mais ñu bëri dañ fi ñëw di barkeelu ci ci ndox mi nga xamante ni moom fi nekk ci bokk ci teen bi nga xamante ni sëriñ bi moom ko defaraloon boppam te kii di suñu Abdou Ahad daal koy yeesalaat beneen gis bërëb bi nu mel nii ci niñ koy yeesale mu nekkoon ci loo xamante ni daanaka ñu bëri dañ fi ñëw di def ci li nga xamante ni moom mooy Euh, seen barkeelu euh, am na benn nag boo xamante ni nit ni mooy teenu suñ fal bi nekk ci biir jumaa ji bii nag mooy benn bi nga xamante ni moom la euh, sëriñ bi defaral woon boppam daal koy bënn ba mu ba mu kii daal di koy yeesal di wax na képp koo xamante ne ñëw nga fi daal di naan si ndox mi lépp li nga xamante ni sàkku nga ko ci ñaan di ko ci am donc mais nit ñi dañuy faral di daal di bàyyi bërëb yu mel ndax taarix bi du bëree bëri bëri nit ñi duñ ko faral topp mu nekk ci fi nga xamante ni moom mooy ginnaaw kër Saliou Mbacké euh, ñu gën koo xam ci li nga xamante ni moom mooy euh, teenu Aynu Rahmati ñu ci bëri euh, ni jël nañ ndox mi sax tuddee mi nga xamante ni am na fi parce que ni moom mooy yoonu murit comme ni nga ko waxee sànq rek ci bi bind na ba li nga xamante ni moom mooy traduction ci bi nga xamante ni bind na ci am na ci ñaari phrase yoo xamante daal nañ ko bàyyi xel daal di koy bind en français benn bi mi ngi wax ne tu nous abreuves de la meilleure eau dont le buveur se désaltère et euh, bénéficie euh, d'un bonheur parfait donc euh, ci li nga xamante ne mooy ndox mi nga xamante ni ki nga xamante ni moo ci ciy ñaan am na leen loo xamante ni ko def ci moom ba day raxas lépp loo xamante ni mi ngi nekk ci moom andi leeraanga ci moom beneen béy bi nga xamante ni mën nañ ko waxaat ci ci français moom mooy assimile le cœur de celui qui boit de cette eau à des bienheureux qui possèdent la lumière donc mu nekk ñaari kàddu yoo xamante ni boo ko euh, tënkee rek nga xam ne euh, ndox mi nga xamante ne moo nekk fii euh, ci ay Aynu lu am importance loo xamante ne nit ñi war nañ ñëw di gëstu si euh, di xool li nga xamante ni moom mooy Serigne Touba bërëb yi nga xamante ni moom ci boppam moom moo ko daal di sancal boppam fii di Aynu bokk na ci donc ñu ñëwoon fi tey ngir leen ko wan lépp ci wàccaay li nga xamante ni moom mooy màggal gi mu bokk ci mythique yi nga xamante ne ay lieu mythique la fi nga xamante ni mooy tubaa nekk ci ginnaaw kër Serigne Saliou ndigal nag yoo xamante ne jot nañ ko ñoom ñi nga xamante ñoo fi di ko saytu moo waral ñoom mun ñoom mënuñoo yëkkati ay kàddu jëmle ko eh, ci li nga xamante ni moom mooy bërëb bi ndax eh, mbooloom ñi nga xamante ni dañuy faral di ñëw ak yu ni mel eh, ñoom nag ndigal loolu la ñuy topp waral mënuñoo am ci ñoom koo xamante ne dina wax ak ñun mais li nga xamante ni jot nañ ko tënk rek ci histoire boobu moo nekk ci bërëb bi nga xamante ni mooy Aynu Rahmati nekk ginnaaw kër euh, Serigne euh, Saliou Mbacké te kii di Serigne Touba wax moom ko daal di bëndaloon teen boobu kii di euh, Serigne Abdou Ahad ko daal di yeesalaat ba ni nga xamante noonu la mel jamono jii ni ñu gisee si si taar ak ni nga xamante lañ ko defaree ak nit ñi di fi ñëw xanaa di leen jox di daje rek ci yeneen bërëb ci biir Touba ci li nga xamante ni mooy wàccaayu màggal gi fii ci nga xamante ni lañ jëm ci 18 safar bi ci atum 2021